the police advise parents to protect children from COVID-19, the Office of the Inspector General of Police has made a call for to all parents to protect and support their children from the deadly coronavirus by asking them to stay at home during this pandemic. Police added that parents and guardians who are found negligent will be held accountable for failure to protect children from COVID-19 and related dangers. The Office of the Inspector General of Police, through a notice on social media, has observed with great concern the manner in which children are left on the highways, markets, car parks, and other public places engaged in petty trading, selling of bananas, water, granules, among other things. Detail of that on the uh, Point newspaper. lii daal uh, police inspector general police ñoom dañ uh, binda si waaw social media platforms yi di wax ñoo xam ne waajur yoo xam ne daal dañ dee bàyyi seen doom yi di dem génna si biti di jaay di engage si yeneen si si mbas mi mu ne loolu noonu waajur bu nekk rek da nga war a protect sa doom te kuñ téye si loolu rek dañ la dañ la dañ dañoo teg ah, dara si sa kaw waaw foog naa ne responsabilité yi la ñuy wax rek euh, ku ne war ngaa jël sa responsabilité euh, ñu téye xale yi aar leen ndax situation bi tamit euh, daf ko laaj yàggoon nañ ko wax sax jaayaloo xale yi di leen wóorloo nekkul lu gën waaye situation bi tamit léegu léegi ci kër yi ak yu mel noonu moom moo ko dee laaj mhm. waaye tamit lu mun munta am metti na lool waaye ñu bàyyi xel xam ne xale moom war nañ dañ leen war a aar waaw <laughs> waaw loolu moom dëgg la mu ne daal bu hmm. uh, dara amul ci kër gi foog xale yi tamit dem jaay loolu moom am la waaye tamit uh, foog ñu ñu aar xale yi ndax xale yi buñ demee ñu ne mag yi ñoo des si kër yi mag yu yi nga xamante ne uh, you know dañ mag te duñ génn xale yi dem laalante ak nit ñi feebar bi te dafa ay si mag nga ñëw ag ak mag rek affaire yi hmm. laal ko te day métti bu boobaa loolu la ñoo fàttale rek gars tamit parents yi ñu am responsabilité police yi loolu la ñoo wax su ko defee mën hmm. wattu bi waaye tamit nga àddu ci rek. waaw lu lu am solo la. Mhm. te kanaa juurin e, coronavirus bii rek loolu la waaye daf ci am fu ne bëri na njiiti réew yi bëri te soo leen laajoon demal leen seen yaay marché jaayal na leen gerte caaf defal leen lu nekk loolu tarbiyu la si ñun comme yar la si ñun. Mhm. def ko taxul a yàqu. donte le jamono soppeeku na am na ñu koo def jëlee si yàqute waaye def ko dafa am lu mu lay jural ëllëg. parce mhm. que sa yaay defal ko lu nekk. ëllëg dafa am barke bu muy def si yow loolu waral lu bari waaye comme ni ko nii ñu waxee si suuf rek bu dara amul si kër gi dem fa euh, loolu mu demee suñ loxo moo jot réew mi la loxoom jotut gannaaw te lu ñu ama ko bon euh, kenn xam nga lu gars di wax kenn kenn kenn naka lañ ko doon waxee kenn eel. Mhm. kenn fukk lupp kenn eel. Euh, boobu waaw soo loolu moo dafa xaw a doy waar. <laughs> boobu boobu beneen affaire la. soo dafa doy waar. waaw ok xanaa ñu plop ko foofu rek. nañ ko plop foofu ba ëllëg ñu jekkale ko. <laughs> su ko defee ñu kenn lupp fukki eel mayen bi ñëw léegi.